xam nga bett nañu xam nga bett nañu xam nga bett nañu mbéj ñu dañ leen ngàdd bett nañu ngàdd ñu dootuñu ngàddaat ah si c'est une déclaration de guerre xoolal non c'est pas des menaces c'est des menaces lañ fagaru ah dañu bett donc donc politiquement politiquement ensuite ensuite benn affaire benn xoolal waaye yow xoolal beneen affaire bu ñuy ay nervi waa léegi ñu ñuy jiñ ay nervi eh suñ ñuy jiñ nervi ay ay ay bandi ay mbër dama leen di laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko punkal yi mu waa GIGN ak police lañu xoolal lañu ah, non li ma le plan la politique répété. c'est que la lutte est extrêmement grave yéen wa pasteur. Ah, man waxuma ni boo jeunes yi mbéj ñu Hein? mais ci c'est politique la bok. mais dinañ fagaru ba dootu lañu mbéj. loolu su leen su leen su leen naqatee ba rek euh, yaa xam ne def nañ fi émission vraiment il tenait jusque là mais dafa craquer si mu jël tël bi quoi parce que li wax fini c'est extrêmement grave parce que menace la non non c'est extrêmement grave parce que menace la li def menace la léegi nag li mu def nii. xam nga li mu war a wane. mais loolu baaxul. mais même politiquement non non c'est les jeunes du Sénégal. les c'est des propos extrêmement graves je lui demande de retirer ça. qui

sérieusement yow ngay nekk di menacer loolu baaxul.